Assalamualaikum wa rahmatullah kon ñu dik ak yeen ci naafilak guddik juromel gi ci koor te moy aljuma fukki fan ci weeru me atum 2019 sëriñ bi dafa wax ni guddik juromel ga ku ca julli ñent rakka rakka bu ci ne nga jàng ca faatixa benn yoon ak alam nasrax ak qul huwallahu axad ñetti yoon ne loolu ku ko def mel na ni ku aj junni yoon umra junni yoon des na ko musal ci ak ñàkk des na dolli wërsëgam te xarafu ci ne dees na ci bind ñaari malaaka yuy far ay ñaawteefam di bind ay yiwam di ko yëkkatil ay daraja ba bis day dellu ci te bu faatoo des na ko bindal tuyaa bay ku dee ci jixaat te des na ko jéggal bàkkaaram yépp te des na ko musal ci mititu dee te fow dana am ngërëmul yàlla te bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti ajjana mu di ci xewu ba kera bis penc ba kon julli gaa ngoog yal nañ ko suñu borom man loo te ñu def ko te def ko ni mu ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko làqal ñu ko fa yàq eggul bi barkat sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam